expérience bi ma am ci wàllu élection présidentielle néew na ku ko am ndax 1988 à 29 ans laa njëkk a diriger campagne électorale bu Ablaye Wade bi nekkoon chef de l'opposition ya ca tege yépp maa ko diriger ba bi ko jox ndam en 2000 mu teg ma ci wetam mu dem ba mel ni man maay président bi à sa place ndax ci jamono boobu ma fa nekkee 2000 ba 2004 bariwul ñu mën a ràññee Karim Wade ba ma fa jógee rek la commencé nekk ministre du ciel de la terre de l'océan et de ceci mais tant maa nga fa woon xay na d'ailleurs loolu moo tax ñu fexe lu ma fa jële wante je pense que bu ñu seetee fi mu mujj bañoon koo defa gën moo gën ci ñoom moo gënoon ci réew mi bu tënkuwoon ca la mu niseroon ne dana def mandat bu njëkk bi muy 2007 dana ci teg bu ñaareel bi egg 2012 jox ma man ma def 2012 2022 ñaari mandat wu juróom man vingt 2022 ma abale bu tënku woon ca loola kon heure bi dana ma fekk retraité di noppal wante tënkuwu ca moo tax may wëyal dox bi puisque lañu lañu bokkoon sumb mu am lu bari lu mu ca def am loo xam ni daf caa jàdd ba mu ca jàddee ma taxaw ne ko déedéet dañu war a jubal fii kenn du fi jàdd dafa bari ay ay kàmba ki ay xaaxaama ki kenn xamul mu ne day jàdd ma ne ko bisimilah man day duma jàdd foofu maa ngi jubal fii loolu rek moo indi woon problème bi pour mbir yi di leer puisque dégg naa lu bari ah Idrissa moo waxoon ni ans day bàyyi c'est l'âge du prophète xaw ma lan ak non ça s'est pas passé comme ça c'est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les libéraux au pouvoir pendant ans pour dépasser le temps que nos concurrents socialistes ont passé au pouvoir, c'est-à-dire 40 ans, que Ward lui-même a planifié le programme comme suit. 2007-2012 à lui, à moi, et au-delà de 2022 aux jeunes pousses de l'époque. Les perturbations qu'il a amenées ont dérangé ce programme initial. Et donc, dans la poursuite de ma mission de produire le maximum de bienfaits pour ma communauté sénégalaise et africaine, je considère encore que la station présidentielle, si telle était la volonté d'Allah et du peuple sénégalais, m'attend.